commandant Mouhamed euh, Niang ab ñangeen la de xam naa ndikki ne ba noppi chef division <laughs> communication ak relations publiques à la direction générale des douanes ñu ngi lay nuyu euh, mon commandant di am mbekk di la dalal ci plateau Infos Matin maa ngi lay fay soxna Faty mm. di la nuyu yow tamit ak ñi nga bokkal plateau bi jërëjëf di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax jërëjëf ak Chérif da ngeen a jàngandoo Chérif sama camarade de promo la fekk daara Baye Cheikh Anta <laughs> nettali ko bu yàgg dëgg <laughs> tey dama koo jël jël bu njëkk parce que mayu ma dara aywa ñu tàmbali Chérif waxtaan bi. waaw waxtaan bi nag mbiram koom-koom la ñuy wax ne soxna Fatou ndax semaine bële passé dañu gis direction générale bu douane génn benn communiqué annoncé na. à partir du premier mai maanaam ginnaaw suba bu ñu fa yeggee am na luy entrer en vigueur ci dogal. Mm-hmm. ñu tuddee ko déclaration préalable. Euh, d'importation. bu tolloo wala mu ëpp téeméeri junni mooy cinq cent mille francs gis nañ nag commerçant yi. ñu ngi commencé quand même di di ko ñaawlu ñenn ñi. déjà lan mooy DPI boobu. jërëjëf euh, Chérif damay sawar ci tontu ci laaj boobu noonu DPI mooy déclaration préalable d'importation. Euh, këyit la goo xam ni douane da koy laaj. maanaam da koy demander képp koo xam ni da nga entamer une opération d'importation fële ca bitim réew. Mhm. lu yàgg la nag lu lu bees. boo xoolee depuis 91 mu ngi fii mais dañ ko doon appliqué benn partie des opérateurs économiques appli appliqué wuñ ko beneen partie bi bi ñu demee ba toog xam ni lu am njëriñ la lu baax la loo xam ne day ñoŋal suñu liggéey. ñu def benn nouvelle mesure mooy avis bi ngeen gis mu ngeen temps yi te waral coow lu bari waaye coow loolu li ko lal lépp ñàkk damaa jàpp ne incompréhension la rek. Mm-hmm. waaye bu buñ ko comprendre woon dinañ xam ni lu mënul ñàkk la fii àdduna toll lu mënul ñàkk la fii yëngu-yëngu jamono toll. Mm-hmm. donc ñun suñu wareef mooy ñëw leeral ko bu pour leeral ko damay wax ni décret moo ko institué maanaam xëyuñu tëb rek ni. dañuy dañ koy dañ koy imposer wala dañ koy dañ koy appliquer par la force décret bi mu ngi daté de 1991 décret bi bi mu ko bi mu amee moo institué li ñu tuddee programme de vérification des importations. Mm -hmm. en 94 déjà état du Sénégal am benn contrat avec benn société suisse bu tudd EGS pour ñuy lever des pays boobu noonu. bi ñu demee ba 2000 aussi état du Sénégal renouvelé waat contrat boobu noonu ak benn société d' inspection bu tudd Cotecna. bi ñu demee ba xam ni jot na administration des douanes jël fonction boobu noonu internaliser ko si la ko si lañ ko jëlee mais parewuñu woon pour ñu pare il fallait que ñu réformer suñu système d'organisation. Mm-hmm. léegi en deux mille vingt si lañ defee benn arrêté portant organisation de la direction générale des douanes maanaam gën a yeesal suñu organisation gën koo ñëwal ba mission yi nga xam ni moom la ñu assigné ñu mën ko accomplir convenablement si lañ créé direction du renseignement. Mm-hmm. de l'analyse et de la valeur. du ñun kese ñoo ko am standard la pratique la yoo xam ne am na ci àdduna bi yëpp Côte d'Ivoire gii ñu jigee soo xoolee benn direction bu mag a mag a mag mag la buy employé autour de cinq cent personnes léegi direction boobu noonu tey jii moo ñu moo ñu permettre ñu internaliser fonction boobu noonu buñ ko internaliser ça nous a permis état bi du Sénégal déjà soulagé nañ ko 4 milliards la doon fay ci contrat boobu noonu chaque année tey ji fayatu ko 4 milliards <laughs> yooyu noonu li mën a jëriñ doomu Sénégal yi na mën nañ cee ay hôpitaux mën na ci mën nañ cee jënd ay garab mën nañ cee ñoŋal ay tali et cetera et cetera et cetera donc DPI njariñ li mooy loolu. lu ci bees moom boo waral coow ñu kon. amul dara lu ci bees li ci bees mooy dañ ñëwoon képp koo xam da ngaa importé ci fekkee valeur bi su àggee un million da ngaa war a lever un million maanaam bu ko àggee wala boo ko ëppee da ngaa war a lever DPI tey jii nii ñu ni cinq cent mille lañ ko wàccee. Hmm. maanaam képp koo xam ne dem nga bitim réew jënd te li nga jënd àgg cinq cent mille. wala mu ëpp ko dangay ngay lever déclaration d' importation déclaration préalable d' importation mu tudd DPI donc li ci bees mooy ñenn ñi ñoo ko doon ñoo ko ñoo doon observé règle boobu noonu ñeneen ñi doon ñu ko observé tey ji dañu ñëpp ñoo koy observé maanaam boo yoree téeméeri junni bëgg a génn ci réew mi wala nga ko indi léegi lan lan la ci douane di moom moom affaire bi douane moomu si dara parce que ñu bari dañoo foog ni maa ngi dégg sax bëkki démb kenn ci seen naataangoo yi moom xam naa gisul ko avis bi wala gisul note service bi mu ni tey jii nii pour wala ngaa importer da ngay fay 500000 <laughs> du du 500000 ngay fay dañu la bu fekkee li ngay importer dafa àgg 500000 da ngay lever dafa àgg 500000 wala mu romb ko dangay ngay lever déclaration préalable d' importation du DPI. Hmm. amul dara loo xam ne douane am na ko ci. amul dara loo xam ne lu ñuy fay la lu yàgg la loo xam ne mu ngi fi ba tey te DPI boobu noonu ma leeral dafa am loo xam ne moom la àndal maanaam les document pôle hmm. document pôle yi ñoo nekk système Orbus bi benn prestation informatique douanière boo xam ni don la DPI moom mu ngi si biir boo xam ne moom ngay fay ak yeneen yu mel ni attestation de change autorisation euh, de de change attestation d' importation ay kayit yu bari la yoo xam ne ñoom ñëpp da koy mm-hmm. fay ma routé ko système obis bi nga xam ne moo ñuy service de base de travail mm-hmm. Mm-hmm. Euh, sànq yaa ngi koy wax ci lu soxal wàllu décret bi 91 12 21 bu 14 novembre 1991 boobaak léegi ay at ci euh, kanam plus de cinq ans ndax am na ay frais ay frais yoo xamante ni des nañ ko appliquer ci wàll wi am déet. jërëjëf ni nga ko waxee dëgg la comme wax naa ko Chérif Sànq du lu bees lu fi yàgg la te njariñam ñun ñëpp xam nañ ko maanaam euh, lenn si njariñ rek mën naa ni li ñu naan équité devant la charge fiscale. Mhm. maa ngi koy wax sànq ñenn ñi ñoo ko doon fay ñeneen ñi fay duñ ko tey jii ñëpp koy fay loolu benn la si njariñ beneen bi nga xam ne mooy njariñ li maanaam. aide d'outil euh, aide outil aide à la décision la hmm. maanaam dañuy permettre tey jii nii en tant que état en tant que autorité ñu xam exactement suñu stock de sécurité surtout ñu koy gën a yittewoo mooy ministère du commerce depuis boobu nag dinañ permettre ñu xam dans deux mois lan moo war a am ci ma ci ci ci ci stock de sécurité bi lan moo fi amul e ñun douane ça nous permet ñu gën a defar suñu toogaay xool analyse du risque maanaam liy dugg si réew mi nan la fi duggee kan moo ko fi dugal et te day yoon lu tax mu nekk yoon mooy tey jii Sénégal comme ni nga ko xamee réew yi ñu wër yëpp daanaka mu ngi tàkk. Mhm. te war nañoo xam exactement ñan ñooy importer lan la ñuy dugal ci réew mi ak nan la koy dugalee ci réew mi loolu njariñ la beneen njariñ li mooy day tax ñu respecter li ñu tuddee la législation financière dañ ni képp koo xam ne da ngay lever benn opération à l'import bu àgg 10 millions mhm. da ngaa war a def lu ñu tuddee domiciliation bancaire domiciliation boobu mooy tey mooy tax ñu ñu am li ñu tuddee la traçabilité maanaam tracer opération bi. pour éviter yenn. fuite des capitaux yi. éviter blanchiment de capitaux tax xam nañ bu baax a baax ne fuite des capitaux. ak blanchiment d' argent corollaire am mooy terrorisme. te wax dëgg yàlla suñu réew mi nag dañ ko war a. ñàkk maanaam benn am na commerçant yoo xam ne dañuy bëgg bu ñu génn génnaa léeg une certaine somme xaalis boo xamante ni devise Sénégal loolu ngeen loolu aussi dañ ko bëgg contrôler. buñ ko lu am njëriñ la gis nga ko bi njëriñ loolu yow xam nga ko tax sax <laughs> waxuma la ko dañuy génn xaalis war nañoo xam xaalis bi génnee ñaata la toll et fexe ba mu duggaat parce que xaalis bi buy génn daa war di duggaat. Mm-hmm. léegi dañ bu DPI boobu da lay li ñu naan obligation de domiciliation domiciliation mooy lan mooy damaa war a lever benn euh, opération àgg na 10 damaa war a jaar banque su ma jaaree banque day permettre autorités yi nekk si biir réew bi ñu xam traçabilité opération bi xam ñaata moo génn xam tamit boo ko li nga génne soo ko dugalaatul tamit ñu xam nan lañ nan lañ def ba est-ce que mën naa eh, mm-hmm. du dem ba ñun li ñu consommé muy jóga mbir mi am ci incidence jotewuñ dara xamul tax jotewuñ dara depuis maa ngi la koy wax depuis 91 mu ngi fii te du benn taxe bu ñu war a fay ay euh, moom ak ay ay la yu mel ni ay autorisation de change attestation d' importation ñoom lay àndal. mu ngi fi depuis 91 ñi nga xam ne ñooy lever toujours maanaam ñooy ñi nga xam ne ñooy ñoo koy lever mooy les importateurs des produits alimentaires ak leneen ak yeneen ak yeneen xeetu produit ñoom ñëpp daan nañ ko lever te ñu ngi continuer di ko levee musul am impact musul am incident mosul am rapport te du ko mës a am. ci pouvoir d'achat au panier de la ménagère. loolu dara waxtaan ak acteurs yi nag quoi yu mel ni bu amee ngeen woo les concernés ngeen pencoo li naan réew kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo. fa laa waroon commencé Chérif. Mm. Euh, di nuyu sama directeur la directeur général des douanes docteur mbay Ndiaye. di nuyu suñu kilifa le ministre des finances et du budget ak yeneen autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi. directeur général de douanes docteur Mbaye Ndiaye bi mu ba tey képp kuy opérateur économique maanaam commerçant. maanaam transitaire maanaam industriel. fekk na la fa nga toog wala fekk nga ko fi mu toog moom daa sawar par exemple moom sax mooy dem waxtaan a ñoom. Hmm. lii ñuy def lépp laxtaan waxtaan moo ko lal bu ñu commencé début d'année teg nañ fi benn réforme muy demat. Hmm. waxtaan na ko laloon tey jii ñu ñëw à partir du mais pour ni DPI dafa obligatoire waxtaan na ko lal waxtaan nañ ceeg ñëpp te ñoom ñëpp ñu ngi koy saluer. Hmm. en tout cas ñi nga xam ni ils sont inscrits man les commissionnaires en douane agréés inscrits ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ndax xam nañu njëriñu DPI. mais dafa bokkoon ci kon ñoom ñu ngi casse de. en fait amalgame day am parfois commissionnaire en douane agréé ñun loolu la ñu bu ñu nee commissionnaire en douane agréé hmm. hmm. yi ñoo nga xam ne ñoo inscrit au tableau. de la profession ñoom ñaxtuwuñu parce que xam nañ bu baax a baax njëriñ bi xam nañu day DPI bi day yokk transparence day gën a leeral day tax réew mi gën tegu ci ay ay anam yi nga xam ne mooy anam yu wóor. Euh, mu mel ni euh, loolee arrangé wul yenn ci ay opérateurs yi ndax dañu gis ne bu ñu génnee ca biti réew mën nañu jënd euh, valeur cent millions yëpp ko ci conteneurs yi bu ñu ñëwee ba port bu Ndakaaru déclaré lu soxal ay un million wala bokk huit millions ak lu ko jege. lu ni mel tax saa su ne ñuy joxoñ baaraamu tuuma douane sénégalaise yan leeral nga indi foofu. leeral li may indi mooy daanaka sax sa tontu mu ngi si biir laaj bi. Mhm. ndax nee nga nga gis ñenn ñoo xam ne pare saa yi dañuy génn dem jëndee lii suñ ñëwee déclaré lii bu DPI bi bu ñëwee loolu lépp dañ ciy dimbali day tax ñu man di corriger di def monitoring di xool lan lii est-ce que déclaré nañ ko baax est-ce que déclaré ko baax di ajuster loolu suñ ko defee suñu recettes yi day gën a day day day day day gën a am solo maanaam ñu maîtriser ko. Mhm. beneen bi ci topp moom mooy euh, ay. Euh, kàddu lu mel ni ay dénigrement yoo xam ne ñu ngi koy teg ci administration des douanes mm-hmm. mais administration des douanes surtout le nouveau directeur général des douanes di ko saluer encore de passage bi mu ñëwee ba tey mm-hmm. ay jéego yoo xam ne lay teg yoo xam ne lépp boo xoolee jeexital gi mooy transparence maanaam leeral maanaam lépp loo xam ne ñu ngi koy def ku nekk xam kan mooy def lii mm-hmm. kan mooy def laa kan mooy def lële ba lépp leer ci askan bi te yaakaar naan su lépp leeree Sénégal moo si jariñu du douane kese parce que douane <laughs> seen i seen i Baay Faal lañu réew mi la ñuy liggéeyal. Mm-hmm. yéen lañ fi nekkal. genre Fatick ñoom dañuy yëngatu ci wàllu GP. ñoom ñoom it dégg na ne maanaam yëngatu ci GP yi. <laughs> boo ko dafa mel ni affaire bi dafa laal quoi du GP yi boobu. <laughs> waaw xam nga GP boo xoolee comme poste la rek. boo xoolee dafa tey ñëw ji tey jii mel ni lu remplacer poste maanaam mission yi même mission la maanaam ay ay dañuy dem ay ni ñooy dem jënd jox leen ñu indi. waaye bu fekkee tamit. ñi ñuy indil dañuy jaay wax dëgg yàlla war dañoo mën a fay bu baax a mm-hmm. baax li ñu tuddee impôt mm-hmm. bu fekkee tamit ñoom li ñu indi dafa àgg cinq cent mille wala mu romb ko dañoo war a lever DPI mais DPI bi tamit di xamal ni concerné wul lépp maanaam lépp loo xam ne loolu la tuddee ay dons maanaam ay œuvre sociale mooy ndimbal yi ndimbal yeeg yooyu DPI bi concerné ko lépp loo xam ne ay effet personnel maanaam Chérif yow nga dem tukki dem jënd say bagage serité indil sa njaboot DPI bi concerné wu ko ah, li nga xam ne ay dons la yoo xam ne ñu ngi koy euh, attribué collectivité locale tamit DPV bi <laughs> yoonam nekku ci. Mm-hmm. bu dee lu am vocation commerciale mais amul ay frais supplémentaires. amul frais supplémentaire li ñu mm-hmm. daan fay loolu la ñuy fay te li ñuy fay fayuñu ko douane. Mm-hmm. fayuñu ko douane. mbiram dématérialisation bi nag fan la ci douane toll parce que loolu aussi bokk na ci loo xamante ni nit ñi dañ koy laaj ngir procédure yi di gën a gaaw. demat bi soo xoolee moom tamit li dal li moo ko dal ba muy tàmbali ca ba muy boo xoolee li ko dal moo dal demat bi parce que demat bi au départ aussi ñëpp dañ doon y avait des résistances c'est normal lépp loo xam ne changement day am ay résistances implicites wala explicites nit moo demee noonu mais dañoo xamul lekk mais demat bi tamit bi ñu ko demee ba teg ko directeur général day doon waxtaan ceeg ñi mu ci waxtaanal woo leen ñu wuy ko ci gis nañ bu baax a baax tey ji nii mm-hmm. efficacité ak performance bi nga xam ne moo am au niveau interne et externe de la mm-hmm. ñëpp ñu ngi ci gis seen bopp formalité yi naa ñoŋ euh, transaction yi gën naa gaaw yaa ngi ko recettes yi ñu ngi confort ñu ngi ci ay positions yu confortable te loolu rek lañ ci jublu woon te yàlla def na ni yàlla ñu suturaal bëgg a forcer yi ndax euh, euh, lu soxal la ngeen ca jublu woon daanaka yéex-yéex bi sax lañu ci euh, gën a nemmeeku ndax dangay ngay amal lu ni mel dem gaynde ñu ne la système bi dafa am problème tey suba lay ñëw ngoon lay ñëw loolu indi beneen lenteur boo xamante ni am na ci wàll wi waaw di dëgg sa question au départ c'est normal parce que dématérialisation intégrale la ñu wax mhm. nag comme doomu aadama rek boo ko daan teg lii nga xëyit bu kaa teg leen ah <laughs> dina am ay soppi ko mhm. waaye bi loolu lépp amee maanaam lenteur yooyu noonu ak mhm. suñuy technicien wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu mhm. góor góorlu nañu ba défaillance yooyu yëpp faa yooyu yëpp corrigé nañ ko ba tey ji système bi mhm. mu ngi ñoŋ ni mu war a ñoŋee mu ngi am performance bi mu war a am bay accompagner les mhm. opérations du commerce extérieur et du mhm. commerce intérieur très bien beneen mooy trafic yi parce que Pape Samba Thiam nee na heure bi jot na c'est le réalisateur bu defee ngeen tënk rek ñu ñu tëj may ko euh, monsieur Nia gis nañu bërki démb rek yàggulan ah, euh, douane def saisie record wàllu cocaïne euh, je pense côté Kédougou yooyu la woon. Koumpentoum euh, euh, déjà. Kidira Koumpentoum Kidira e- e- exactement. Euh, loolu noonu donc day wane ne que dañ leen woowee les soldats de l'économie mais quelque part aussi vous protégez les populations. Mhm. yan genre mécanisme ngeen di appuyer pour réussir genre coup yu mel noonu parce que tamit loolu dafa takku trop. Mhm. Euh, le grand chroniqueur sportif maa ngi lay nuyu. <laughs> di rafetlu bu baax baax tamit sa question bi. Mhm. tey jii soo xoolee jàpp ñu bari dañoo jàpp ni douane mission fiscale bi lañ gën a xam mais douane en plus de cette mission fiscale là douane am na mission économique maanaam mission de protection et de régulation de l'économie mais y mission sécuritaire mission sécuritaire boobu noonu boo xoolee jamono yu weesu dañoo renforcer suñu suñuy moyens d'action maanaam ay xarala yu bees yoo xam dañuy permettre ñuy liggéey. di mhm. def ay yenn performances yi. Mhm. à travers le programme de modernisation de l' administration des bi nga xam ne mu fi depuis 2021 ak am nañ acquisition yu bees a bees xarala yu baax a baax moo ñu permettre tey jii ñuy def saisie yooyu noonu def nañ Koumpentoum benn saisie def Kidira Kidira yaakaar naa saisie bi ñëpp gis nañ ko mooy saisie bi nga xam ne saisie record la saisie bi gën a mag par opéré par voie terrestre mhm. et li ñu ko permettre moom mooy ay xarala yu bees ay jumtukaay yu bees yu mel ni ay renseignement mhm. xam ngeen ko lu mel ni ay filature et cetera mhm. beneen loo xamante ne également euh, donc yitteel na sénégalais yi am na ñenn ci ñuy àddu ci wàllu vente aux enchères bi nga xam ne ñu ngi ci wax boobaak léegi ay sénégalais di ci dugal seen i ay koppar ñu ci dudd ay doomu réew yu euh, Cameroun fan ngeen toll ci loolu waaw boo xoolee vente aux enchères bi maanaam euh, lëmbi na jamono ji temps yi dëkk bi waaw gis nga comme ni nga ko gisee comme ni nga ko gisee fake news la vente aux enchères lii këyit gi ko xool xam ne du këyitu douane mm-hmm. et vente aux enchères ay procédures yu yu transparente la yu leer dëgg la bu ñu la demee askan bi ñoo war a yeewu tamit ndax boo xoolee mun ñu la laajee ni la da nga war a joxe 100000 pour inscrire wu ci vente aux enchères war sa xel war naa ñaaw 100000 yoo xam ne yow numéro bi ngay woo mënoo koo jot appel normal mënoo koo jot whatsapp mhm. ñoom ñoo war a yeew communiqué dinañ ci ba sonn mais xam naa dinañ ci gën a góorgóorlu ci communication bi mhm. ba leeral askan bi bu baax a baax nan lay demee mhm. ak euh, nan lañ koy organiser da nga retardé sax yéen a ngi waroon a dem ci sud xam naa bu émission bi jeexee ak euh, direction générale bi de docteur Mbaye Ndiaye bi ñu wax war ngeen a dem ci sud bu foofu aussi gis nañ fa temps yi ak Malang Diédhiou puisque vous parlez de sport. moo ko jiitee gis nañ ay trafic de faux billets yoo xamante aussi douane defoon na ko ca tànnaaf la woon. Mhm. exactement. Hmm. faux billets tamit soo xoolee xaw naa. lëmbee dëkk bi. et comme ni nga ko waxee maa ngi nii su ma paree fii damay sol sama mbaxana rek <laughs> dem ànd ak convoi baa ngi taxaw di ma xaar. waaw ah. convoi baa ngi taxaw di ma mm-hmm. xaar. Mm-hmm. war a dem euh, au niveau de la direction sud. bi xam ne mm-hmm. Malang Diédhiou moo ko jiitee. sud nag Sédhiou la Kolda ak Ziguinchor ñett yooyu lañ boole mu nekk direction régionale fa la war a dem seet suñu agent yi xool niñ toogee. gën leen a ñaax ci liggéey bi. gën leen a soññ ba ñu gën a góor góorgóorlu ba saisi yi nga xam ne ñu ngi koy réaliser ces derniers temps. mu gën a bari ndax su baree njariñ la ci askan bi te ñun askan bi lañ fi nekkal askan bi moo tax ñuy xëy suba ngoon mhm. ñoo tax ñuy gont ñoo mën a yàq suñu nelaw jaral nañu lu nekk et leen defaan quel soit le prix Pape Samba Thiam mooy réaliser damay bañ mu dagg émission bi ndax sànq ba léegi finalement sax mi ngi may envoyé ah, message depuis depuis 9h heure bi jënd te xam nga jikkoom da lay wax jaaw ko doon di ko basket bi football bi Cheikh Tidiane xam na li may wax football bi ñoo jël instant bi on occupe euh, la première place ci football bi ñu ngi woon deuxième division mais ah. buñu buñu buñ ko jàppee fii dinañ jéeg basket bi aussi ñoo exactement suñu joueurs yi ñu ngi actuellement à Saly ci regroupement ñu ñaanal leen bu baax di wax Sénégal yëpp ñu jàppale leen xam ni suñu amee ndam ndamu Sénégal gépp la jërëjëf merci beaucoup mon commandant commandant Mouhamed Niang bëggoon nañu gën a yaatal waxtaan bi mais heure bi dañoo xoot en tout cas c'est plaisir. merci merci beaucoup jërëjëf ñu ngi leen di ñaanal di rafetlu aussi liggéeyu douane. Euh, semaine yi moom macha allah gis nañ ngeen di def lu am solo. ay jàmbaar fàq tëdd lañu commandant Mouhamed Niang euh, chef division communication relation publiques euh, direction générale des douanes ñu am mbégte c'est un camarade de promo de Chérif Dia waaye liggéey bu rafet na sama lan la. aywa ñaari yéenekaay yi groupe Futurs Médias l'Observateur ak Record <laughs>